ولا هداين سويت عن سوريا ارفع معنه يمن بالتوكل سبحانه رب الي ألتجي ومن تفريج كروب ألتجي اقلم به ربا يقود ما يريد إني عدد لوجه الله زائركم عقيده نيلا أرجو ما أرجو وأرجو الحمد لله الذي تولنا ولم يكلنا لسوى زمنا نحمده حمدا يكافئ النقم سحبه شكر يدافئ النقم نشكره على الذي منعنا ولم يزل في كل حال معنا عسكر سلاميه ألا وليس لي وشدة شاء هما ينجلي ليس المقاتل في الحسود غيز الهدى نهمة الولود لبابي صفوة الورى محمد وآله ما سيا بسيدي هدي يا وهاب विजयी करम तंत्रो मिन कौनिना لك وكونك لنا في كل ما خفي أو ما لنا على في الذي يفوق بيننا وبينك دارا وأثبت بيننا نحن الذين لا نزال أبدا من جسدنا لاتباع مدى عدل سلاميك اللي هي جليل ولا لوسبي وكل وكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما jërë ngeen jëf euh, mbokki téléspectateur de télévision Touba TV euh, waaye nag ba tey it ñu ànd ak euh, Touba monde bi ci teewaayu Serigne Baye Fall Thiam mourid saadix mi nga xamni mo nekkal serigne bi ci walu media fi ci mbooleem euh, man nañu wax ni Europe gep nak di siyaar euh, Papa Abdoulahi Lo mu bax mi nga xamni mi ngi and ak ñun tamit ci li nga xamante ni mooy euh, réalisation bi ak caméraman yi di nuyu mboolem téléspectateurs yi ñu wa waa Sénégal gépp waaye di nuyu bu baxit nak suñu jëwriñ suñu wajur jëwriñ El Mbacke yu fay ñaanal mu yàgg fi lol te and ak ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi ci mboolem fànn xeetu liggéey yi mu àggalee ko sagom te ànd kook moom sëriñ Cheikh Balla Samb noo koy nuyu di ko siyaare waaye suñu directeur sëriñ Pape Diène ngeen gis liggéey bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy def ñu koy ànd ak yéen boobu ba léegi waaye di siyaare bu baax nag sëriñ Fodé le coordinateur sëriñ Mbacke Mbodj sëriñ Amadou Diop sëñ euh, Mamor ak mboolem personnel u télévision Touba TV ku lim da nga dul mën a matal ñëpp rek sëñ Babacar Diop sëriñ Euh, soxna Ndeye Ndiaye soxna Aram soxna Ngóone euh, soxna Ndeye Fatou Mbeng ak mboolem seen sëriñ Ousmane Mbuub murid saadix boobu noo ngi koy nuyu di ko siyaare Babacar Diop ñooñu xam nga xam nga du ñu feeñ waaye faaw ñu siyaare leen Pape Cheikh Bey ñaay fay euh, ñëpp rek sëñ Ibrahima Fay murid saadix yooyu noo leen di nuyu di leen siyaare sëñ Mamor di la nuyu di la siyaare ngeen gis boobu ba léegi ñi ngi ci biir Europe gépp nag muy France muy Italie gii ñu dugg ak fi nga xam ne mi ngi ci suñ kanam rek mboolem fu ñu rek fas yéene euh, ànd ak téléspectateurs yi ngir ñu mën a bëgg xam ni seen télévision Touba TV deux mille vingt quatre bi dafa fas yéene indil leen yeneen i façon production yu am solo yoo xamante ni day nekk Afrique waaye day nekk Europe incha allahu rabbi loolu seen ñaari éléments yi ñoo engagé wu ci ndigalul jëwriñ El Hadji Mbacké Faye fas yéene leen indil lépp loo xamante ne nag xew na ci àddina bi ci wàllu information boo xamante ni nag information buy jariñ la du doon information fitna du nekk information boo xam ni. luy ñàkk bañ a am njëriñ lay doon lépp rek ci liggéeyu télévision Touba TV sëñ Mamor maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar gis nga ñu ngi fii ci Italie waaye ñu ngi fii nag ci Milan waaye espace bi sëñ Mamor boo ko xoolee xam ne espace bu am solo la waaye bala ñoo dugg ci espace bi rek ak turu espace bi ak liñ fi bëgg a def dama lay bàyyi nga nuroo présenté téléspectateurs yi fii ñu taxaw ak liñ fi fas yéene def sëñ Mamor Mbaye yoonu gi. aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim سيدي مصطفى فنان وخ الحمد لله رب العالمين وعينا وخ يدير دي في سيدي توا دي في سيدي توا أه، ا نو سي ار سيدي منتخا مكي باخ باخ سيدي مصطفى ني ني زيار دي نانال جابوتام دي ني سي اوروب بو ني جابوتام نك генي وون موريت генي وون تيجان генي وون خادر генي وون لاين генي وون سي بن جوليت نخ موم موي لو تير noo ngi ñaan suñu borom guddal fanam. amiin amiin ko ak mbooleem. njabootam gépp mm-hmm. mbooleem koo xam ni samaam maam mbaa sa wéyjur. Mm-hmm. sëriñ bi ba làq ngërëm moom noo ngi lay siyaar fii ñu taxaw. Mm-hmm. Moustapha fii mooy. bee moom Milano. ñu ci Milan. muy barab bu symbolique. barab bu historique. ci Italie. Italie nag nekk capitalu christianisme. ndax Rome gi nga xam ne dañ koy ziar ca Vatican comme ni ñuy demee aji màkk ñun ñu nu gëmee noonu. Mhm. ñi jublu loolu noonu lañ ko gëmee ñoom. Mhm. kon yaakaar naa ne bu ñëwee ba fii muy barab boo xamante ne. Mhm. ñoom fu ñu fonk lam ndax gis nga loo teel teel a xëy fekk leen fi. kon yaakaar naa ni. Euh, lii nag bu amee. dañ koy siyaaree alaaji mbàkk yu. di ko nuyu bu baax a baax. di ko tatagal. di ñaan suñu borom guddal fanam ndax ni nga ko waxe legi benn bëgg-bëgg la am benn yëg-yëg liggéeyal Serigne Touba ak bëgg ko diko defal ak désintéressement comme yalla nako yalla may jàmm. amin amin amiin sëñ Papa Abdoulaye Lo non koy xaar bax bax baax Moussa Fall xam benn julli rek yokkute la té mom ñom demb bi ñëw legi bay Baye borom Touba monde bi. teewalu nu. téeru nu tatagal nu. dalal ñu dalal nu and ak ñun ñu bayyi seenu liggéey ngir lan xamni kat ñun ay gan lañ yoo xam ne Sëñ Tuubaa lañ si hmm. doon barab bo xamni di fi am mbokk sax nga ñew hmm. mu nëbbu la mu xol na neen nu muy doxale mais ñom hmm. ñun mo leen gënal seen jëmmi bop kon mention spéciale di wax sëñ Mbàkke yu neko ko nan nu teeru go xamni ëpp na te ci kanam ci dina ñew ndax mustafa ndekete Italie gi consul bi fi nekkon sax defal na Touba TV diplôme d'honneur boo xamante ne dinañ ko gis ci kanam tuuti. Mhm. loolu ñu tegoon ko ci loxol Baye Fall mi nga xamante ne mooy Touba Monde bi xam Touba Monde bi ak Touba TV benn borom lañ. Mhm. sëñ Touba moom télé yëpp. Mhm. kon Moustapha yow ñu lay si di la ziar nuyoo ak téléspectatrices yi teg nañ ko ci sa loxo. di ñaan yàlla may nu jàmm ak tawféex ba émission biñ fi bëgg a def. mu ni ko waxee sànq mu doon njëriñ ndax ki nu koy defal kenn képp la muy sëriñ bi. nafaxaan yi naafixu nafaxaan jazaba li xal ba kulle faa isin fan jasaba mhm. kon yàlla na suñ tubaa defal njëriñu àddina ak alaxira mhm. walaahu yansuru nii wal xalxu tatbaw nii fil bahri wal bahri za nafin bila dararin yéen waa géej gi woo naa waa géej gi woo waa jéeri euh, bamba nee na géej am ak jéeri Seex Bamba dem na fépp woo na ñëpp woote na fépp faj na aajo ñëpp mhm. yàlla na faj sunu aajo ci barke sëñ tubaa di ñaan Moustapha bépp sénégalais bu nekk ci bitim réew ak réew moo nekk yal na suñu borom defal jamm defal lay xewal da nga dellu ci rew ma investir fa jagn rew mi ci daraje Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sëñ Mustafa jërëjëf seigne mamour ci euh, nuyoo bu am solo bobu nga xamni nuyo nuyoo nga ko xamna ni dina am ay mbokki talibé yu ñu wara euh, interroger légui euh, laaj leen ci walu ciosanul fi ñu taxaw doomu Miaono li ngi ko li ngi ko waxe légui rek muy place bo xamante place bu ñu fonk la ndax li mu symboliser ci dëkk bi moo mel noonu ndax dëkk boo dem ci àddina di nga ci gis ay barab yoo xamante ni dafa am li muy symboliser ci biir dëkk ba loola euh, liñ ciy bëgg faaw ñu am ñoo xamante ne dinañ leen am ay laaj yu leen di laaj waaye balaa boobu sëñ Mamor euh, ñu am tuuti rek loo xam ni des fois dinañ koy faral di dégg ci sa biir wax ci wàllu euh, histoire yoonu murit nga xam ni ku mel ni Serigne Moussa Ka nga xam ni dafa bokk ci mag ñi nga xam ni dañoo àndoon ak sëriñ bi bind ci sëriñ bi te histoire moom sëriñ Moussa Ka bind na ci loo xamante ne képp ku bëgg a xam ci sëriñ bi yoonu géej gi wala jéeri ji boo demee ci mbindam euh, wala Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana comme ñoom dañ koo bind xëy na ci wàllu araab sëriñ Moussa Ka wolofal ko te ñun ay olof lañ mooy gën a yomb a comprendre ci li nga xam ne mooy histoire du sëriñ bi waaye sëriñ bi bi ñu ko jëlee Ndakaaru di ko yóbbu ci exil bi yàlla dafa def ñi nga xamante ni ni nga ko waxee léegi rek ñun jullit nga xam ni gëm nañu yonent bi alayhi salaatu wa salaam gëm yàlla ñun suñu suñu aj ñoo ngi koy defee fële ci màkkatal mu karam waaye ñu waaye ñoom ñi nga xam ne ay chrétien lañ fee nga xam ne mooy Rome nga xam ni mooy mooy capital ba bu ñuy def ñoom tamit seen wàllu aj foofa la ñuy dem di def euh, di def lu mel noonu ndax seen gëm-gëm ca loolu la jëm waaye labbe ya fa nekk te labbe yàgg ci àddina histoire wu labbe ak nitu yàlla yàgg amit di répété ndax it ñoom yàlla mi nga xam ne moo bind doomu aadama yi kenn ku nekk la ko soob su la koy may ci coobareem la la koy mayee kon en tant que nit waxuma chrétien waxuma juif waxuma kii waxuma kaa waaye en tant que nit rek yàlla moo fonk doomu aadama wala xadd karam naa bani aadama waaye wa amal fil barri wal bahri wa rasaxnaahum min atayibatin wa faddal ala kasarin minna xalax naa tafdilan loolu ba tëral googu yàlla tëral doomu aadama labbe yi am ciir boo xam am nañ ko ci ba bi ñu sëriñ bi yóbbu ko bi ñu dañu daldi wo labbi laaj leen mbirum serigne bi waye amna ci ay témoignage yu am solo solo yo xamanteni ni daan nga ko faral di wax lu bare bare bare bare ci say waxtan loolu nak boko boo ko di wax ñi nga xamni peut-être comprendre ñu des fois adina moy dox di dox ba ag ci leral lo xamanteni euh place ba nga taxaw di ko wax moy gëna a yell ci nga leral leen en tant que taalibeem Sëriñ Tuubaa buy wax ci histoire sëriñ bi nangam kat bu ma ko daan wax dana ci naan duut baaraam nag ñu leen lii yëpp tax ma doon ko wax te loola la ko la koy wane tey mooy fii nga xamante ni fi laa taxaw kon yaakaar naa ni sëñ Mamour loolu lañ laa bëgg rek nga ñëwal nag wax ma labbe yi nga daan faral di wax seen digganteeg sëriñ bi bi ñuy xool sëriñ bi dox ni kii bu ngeen ko bàyyiwul seen mbir baax loolu sëñ Mamour lan nga ma ci indil fii nga xam ne fi leen taxaw tey ci Milan ci Italie sëñ Moustapha laaj bu ma mos laaj. baatu bii moo la ci dàqal. bii moo ma ci dàqal. Hmm. ngi ñaan bi. Hmm. ma sago. ba mën koo yeggale. ba mën koo yeggale waaw dimb dimbali rek nag wax dëgg yàlla ba. laal waaw waaw waaw. ndax sëñ Moustapha. Hmm. Euh, boo déggee sëñ Moussa Ka naan keroog labbe yi dañ bu ci gaaw. gi ba fi xarnu bi. nga déggaat mu naan labbe yi ko nan maroo mhm. tubaab yi naan ko bu nu waroo mhm. soldaar si naan ko bu nu meroo mhm. yilif ñibbil yilif nga xarnu dal na yonent beeg ahlu badar ñoo dàkku quartier yi ko wër saytaani di ser gabon ñuy daw ci xarnu bi ah, mu waxaat di ne dañoo wóorul fuur dañoo wóorul labbee forom ngir jaaxle mhm. te Moustapha pabbi labbe yi lépp lu leen mës a a tax a jóg tubaab bi dem na ba lott ci mhm. ndax ñoom baatim piir woo mhm. ak ak ak ak ak ak li ñuy wax euh, sacrifice ak xamee yàlla ci beneen côté bi mën a taxaw xas nga xam ne dañoo yàgg ci yonent ya ba tey loolu tubaab yi daawuñu leen génn ci lu yomb guerre sax daawuñ ci participer benn buur mësta tax benn laaj bi jóge fii ñëw di ko régler mais lan moo tax tubaab yi jël sëriñ bi jël ko yóbbu sept ans neuf mois ñu dem ba jaaxle las soldat si tiire nan kënu tàkkulu def nañ ay pexe jubul Hmm. lors de sa déportation fut enfermé dans une cellule de jardin de de Saint-Louis pendant plusieurs jours avec un lion affamé hmm. comme ça va la nous fait nga xamante ne làbbe yi dañuy dugg ci xërëm yi génn daal na yuuxu ñun la loo gis nga ne kii leeram gi sar na ci asamaan ba jaburut sar na fi suuf daan benn mu kii malakut parce que ñoom du dañuy tëb rek di wax dañuy xool ba gis naan la nuuru jalaal wan na koy jalaal nuuru jamaal wan na koy jamaal hmm. keroog la làbbe waaf seen hmm. naan maara bu bii day borom wilaaye hmm. kuréel keroog la fóore labbe yëpp booloo mhm. boo déggee mooy tudd labbe labbe labbe mhm. fii lañ yaakaar fii mooy le capital du christianisme mhm. fii la labbe yi jël ay bato dëgg nañu Afrique centrale ne kenn la ñuy seeti mooy bàyyi Serigne Saliou te sëñ Moussa kooku jëmm jë dafa tuuti woon lool doxin ba gaaw poids ba néew ci kanam suñ si xaw balla nee na defal naa ko ndox muy jàpp ba yàgg mhm. nee na bi muy raxas tànk yi sama xel dem ci tànkam bi ni mu tuutee mu ne ko seex mu ne ko mbàkke mu ne ko gis naa sa ta sa sa sa xel mi xalaam sama tànk bu ndaw bi mu ne ko waaw mu ne ko mu ne lu yëngu ci àdduna bi moo ko yëngal waaw lay dëgg la Moustapha koo kii mhm. nangu naa suñu Moustapha lu mu wax ne mhm. bi mu demee Gabon parce que Moustapha nga maa yomba neexut a dem te di nga fa dem maag yow 2019 nak narona and man nga bàyyi ma dem fekk mhm. ngay waajal yoonu makka mhm. waye ma yomb ko fa dem xamni ni labbe bi nga xamni seigne Safa Lo ni ngi koy netti seigne Safa Lo ne dafa ñew dalak dal porjanti, dalak mhm. ku ñu wax seigne ma jaxeer ci am moy talu seigne yàlla yalla suñu borom doon leer neena mu ne ko man dama bëgg dem ma yomba mu ko Cheikh Mbacke ñewul na fi bëgg fa dem ne ndax ndax fofa du barab bu mu mëna dem ba barab boo xam ne dafa neex a dem. Mhm. environnement ba baaxul. Mhm. Euh, dund fa yombul. Mhm. demukaay amu fa. te sunu waa def na fa juróomi at. Cheikhul Khadim def na fa juróomi at. Cheikh Bamba def na juróomi at Mayumba. kenn waxatul Samba ki dem ba Bamba. dëgg la de. bi tubaab bi demee ba nag ci lañ jël benn labo nee na suñu salaaloo nee na ci laa jóg. nee na keroog la ko ne kaay ci maire dëkk bi. di maire Port-Gentil. mu dimbali nu dimbali gi mu dimbali ñu yow nga ñaa ñaanal ko yow sëñ Moustapha Lo sëñ Moustapha nee na ma ñëw euh, ne ko yaa ngi dimbali Sénégalais yi jërëjëf ñu ne ko kii sëtu sëñ bi la Cheikh Ahmadou Bamba mi ñu fi indi woon. Mhm. muy topp ay gëstoom ba ñëw lambar na daal di agsi fi Port Gentil donte sëñ bi taxawu fi sax lu yàgg. Mm-hmm. muy muy muy câble pèse. tubaab boobu bëgg a dim nekkate mooy dimbali sëñ Moussa Fallou. Mm-hmm. dama ne ne ko ndax mës ngaa dem Mayumba. mu ne ko demoon fa ndax neexut a dem. Mm-hmm. biñ ma nee neexut dem sax mujj na moom ma xam ne rek. gëstu yi foofu dootu ci naratu cee bopp. dëgg la mu ne ko am na sama xarit boo xam ne daf fay daggi bant tubaab la. am na fa chantier. avion bu ndaw la fay yóbbu dinaa ko laaj ndax dina fi ñëw tey bu subaa na fi ma jaxeer ñëw ma laaj ko lan la wax ba xam dina la nangoo yóbbu mhm. tubaab bi ñëw daal na sëñu Moussa Fallo bu poids bi ëppee soixante kilo moo ki bagage am du mën a dem mhm. beneen bi ci topp samedi bii may demee bi ci topp lay ñëw lay ñëwaat mhm. bi ci topp mooy garantie yoruma ko te dina ma jox quarante mille sëñ Moustapha Lo nee na ma nangu nee na bi ñu déparé benn tubaab ba toog ci kanam ak moom man ma ne ci ginnaaw avion bu ndaw la mhm. nee na mi ngi wàcc dëkk bu ñuy wax Ngamba mhm. nee na bi tubaab bi wàccee mu ne ma kaay ci kanam ndeke ci laa xamee ne sax tubaab bi dafa màndi mhm. nee na avion bi daw di daw parce que Mayomba Moustapha dëkk bi ko gën a jege mi ngi tudd Cibanga entre ci Cibanga ak Mayomba cent kilomètres da ngay romb ay Ikembele ay Muyla Tranquille Pont Avodo ay Yamba Mayanga Mouré ak Mayomba. Hmm. nga romb ay dëkk bu ñuy wax Fugamu yooyu yëpp man li tax ma ko doon bind mooy comme chercheur la damay gëstu rek. nerewu ma hmm. di bind ñu ngi yëpp man samay document parce que bari na ay dëkki dëkk. Sëñ Sawa Lo nee na bi mu wàccee tubaab bi ne ko fii laa waxawoon te yow muy ay garab yi kese nee na ma ne ko mais man fan laa jëm mu ne ko boo toppee di dox. Hmm. di nga gis benn poste de police nga wax ak ñoom dëkk bi dëkk bi rek àll la Moustapha Gabon capitale bi sax àll la Libreville bi capital bi sax boo fa yóbbu woon nit ci jamono jooju bëggoon na flyam tubaab yi ñoom dañoo sànni ji woon sëñ bi parce que dañ ne les animaux sauvages yi gën a doy waar ñu ngi dëkkee contre entre entre entre fi nga xam ne mooy Mayomba te Mayomba mi ngi ko frontière ak Congo Brazzaville boo gisee muy bind ci bindam di wax naan wa Congo wa nangam. mooy diggante ne ak Gabon moo foofu la Mayomba ne muy un forêt vierge c' la première fois un négro-africain taxaw foofu réussir li mu réussir bàkku bi nag lii ci la bokk nag Moustapha dëgg la lii ci bàkke Sëñ Tuubaa yi la bokk mhm. keroog bi nga xam ne loolu am na sëñ Moustapha Lo nee na maa ngi ci seer baax imaam sëñ Basiru Lo sëñ Moustapha Lo mooy way juru sëñ Basiir Lo imaamu Masalikul Jinaan ak mm. rakkam sëriñ Xaadim mm. yàlla na ko yàlla gën a dëbb kàttan ba mu yàgg noo jiite ba nu yàgg noo jiite ci darajey sëriñ Tuubaa ak waa Masalikul Jinaan gépp moo ngi profité di leen ci siyaar Mustafa mm-hmm. nee na may dox ba agsi ci poste bi wax ak ñoom ñu kii wax ak ñoom du yomb mais am na sa benn mbokk sénégalais bu fi ne mm-hmm. nee na ci lañ ko dem jëlilil benn taalibe sëñ Seydou Nour Tall El Hadj Seydou Nour Tall ñu ngi tudd Ibrahima Sall mm-hmm. sëñ nee ma ñëw nee na bi ma agsee nee na Sall daal di wax ak man tuuti ne kii sama mbokkum senegale la. bàyyi leen ma daloo ko sama kër maamam moom luñ fi indi woon nee na day topp ay ay ay ay tànkam. nee na bu mu dalal ma daal ne ma yow de am sama benn benn benn mag moo xam ni mu ngi tudd André Ngéringa te nee na fekkoon na Perrenago waxoon ko ca ma ca làmb ca Cap-Lépez Argentine ne ko boo demee Mayumba di nga fa fekk ku ñuy wax André Guéringa André Guéringa momu biñu ñuy sëriñ bi fi la ko fekk manam bi bi labbe bi fi la ko sëñ Tuubaa fekk mais bobu xalé la woon légui nak mag la nak yalla nang ko fa fekk ndax mu mën la wax ci histoire yu bari ndax mom sëñ bi ñor nako néna bima na tamit Ibrahima Sall waxaat ko lolu néna biñu bi nak wara ñëw ci sappel bi parce que ma yomb ba fii ñëw bon sëñ bi Moustapha sëñ Tuubaa bu gën ko rëcc sax mën ta rëcc église bi dafa nek ni muy sapel bi ka bi nek ni encourage bi nak geejgi moko sekk bu doon serigne bi kuy recc la mën ta recc na bi ñu ñëwee andri ngir nga dal di genn nak ci benn magget nak mën ta sax dox neena ñu dal di indi benn interprétateur bo xamantene mi ngi ab li benn la dégg na arab dégg français kon lu lu lu lu lu sëñ Moustapha Lo wax moo koy jottali André Ngiringa lu André Ngiringa wax moo koy jottali sëñ Moustapha Sall. Mhm. sëñ Moustapha sëñ Moustapha Lo. Mhm. maa ngi ciy ziar sëñ mhm. na mu daal di ne ko kii nañ indi woon maamam fii te ñu dégg nettali histoire André Ngiringa ko nan la nekk sa maam sëñ daal ne ko moo jur sama yaay. Mhm. ndax sëñ Moustapha Lo bul fàtte ni sëñ Daam Abdourahmane Lo ko meññi waaye soxna muslim yi bokk ak sëñ Mourtala sëriñ bi bokk ak moom soxna soxna soxna tuuti Diop moo ko meññi mhm. rek nee na ànd na ngeen ngaaw bi dal di jooy mhm. dal ni ko kooku xamoon naa ni bala maa faatu lu bokk ci man dina ma fekk fii dal ni ko Ahmadou Bamba sëñ Moustapha Lo nee na maa ngi koy dégg mu ne mu ko ak am fit ak am jom te ñeme waaye daa tuuti comme yow ne ko nit ku tuuti la comme yow ne ko keroog bi ñu jëlee benn labbe Loango Moustapha fii lañ daan désigner labbe yi tas ci àddina bi mu ne ko keroog bi ñu jëlee benn labbe Loango ngir mu ñëw mën a seet muy seet mbirum sëñ bi fii la ma fekk nee na dañoo mujj annoncé ne ku bëgg a seetaan suba 15 heures labbe bi dina wàcc ci gaaram ñëw di laaj sëñ bi ku ko bëgg a fekke ñëwal seetaan si nee na bi ñu ñëwee ba fees ñu ngi seetaan ñu ngi bàyyi sëñ bi lële labbe bi wàcc mi ngi ànd ak général bi ak le commandant ak le lieutenant soldat si accompagné leen ñu ñëw ci sëñ bi nee bi labbe bi ñëwee bi mu nuyu sëñ bi sëñ bi jox na ko loxo mais commandant bi tàllal loxom bi nuyu sëñ bi sëñ bi fil loxom rabbe bi ne len ñu ñep arrière né nak ci ñu dakk ñi arrière André Njëriñaa né na suñu safaa loo man ci la bok mhm. nee na bi ñep delo ginaaw mhm. né na rabbe bi di wax ak seigne touba pendant 2 heures de temps parce que 15 heures ba 17 heures et quelque ñu wax ñom ñaar ñu ngi wax ñom ñaar di waxante né na ñu togon yàgg ci respect bi labbe di joxe labbe mhm. bi di ne ñi seigne bi tàggu ko comme noonu ñuy def seigne bi tàggoog mom nee na labbe bi arrière dand sëñ bi di ko xool di ko xool di ko xool ba yàgg daal di ne leen ñëw leen bi ñëwee mu ne leen kii mënuñu leen ko dara waaw moom mënta nag sëñ Maam Moor faaw nga yëngatu waaye euh, foofu am na sew-sew bu fi ne parce que balaa sëñ Maam Moor ñëwaat ndax moom euh, moom nii la ñu nekkee daanaka émission yëpp dañuy ànd rek di waxtaan léeg-léeg ñu daanu suñu jël jël si waat ndax suñ tubaa moom kenn du ci am sago sago sax ma yow ci dara suñ tubaa li mu yor la waaye sew sew bi mooy làbb bi bi muy waxtaan ak sëriñ bi li jaaxal tubaab bi mooy bañ ne làbb bi déggul olof wala ñu ne sëriñ bi dafa dégg français wala itali itali italien la dégg wala lan. waaye ñoom ñaar taxaw nañ di wax te inter eh, interprète amul foofu interprète amul foofu kon li mu doon bëgg a wax ak sëñ bi yëpp ñu ngi koy wax ñoom ñaar waaye beneen bi ma ci bala ngaa tënk rek ñu mën a jàll ci suñ mbokk yi beneen bi ci topp sëñ Mamor mooy observation bi làbb bi doon def sëriñ bi nga xam ni laataa muy woo ñi muy waxal toog na di xool sëriñ bi di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool di ko xool di xool lu yàgg door a woo ñi ci des nag. door leen wax li door leen wax lim leen wax lan la leen wax suñ Mamour lu leen woo da ngaa wax Moustapha wax bu solo maa ngi jégalu mhm. maa ngi jégalu ni kan moo ko doon interpréter mhm. dégg nga sëñ naan Kanaan keroog la Cheikh Bamba di léebuy nasaraan mhm. kenn lapp tawu ko ci góori Soodaan waaw góore waay ne leen ko këf jigéen ne mel naa at te mënuloo ko dara dara ci ay nga far ko delloo ci ay bokkam ndax génn guddi dana tax nga am ci mu ne noonu laa mel man Cheikh Bamba lu ma tiit du ay bala mhm. am naa yéen juróom-ñaari at yu topp da mhm. mënul leen ma dara maa mën ñëpp waaw wax na dëgg Moussa Fa kooku moo mën ñëpp moo mën ñëpp dëgg la kon daa mujj moom liñ li mu bëgg a communication bi am te mhm. xamul kooku koy wax dina fexe ba tubaab bi xam dëgg la ndax it moo ni fokkul man saalani fali jawaab xablul waraatu jaddidu ahlul kitaab olof bii ma olof rek laay sañ di wax ak nit ñi ak arab bi nga xam ne rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moom la namp mhm. waaye sëñ bi picc mi sax bu sobee xam na ko te bu ko neexee kenn du ko lappatoo ndax ku ne sëñ Daaru Asan di nga dem ba bu ñu yàlla bindati bu waxee nga dégg ko sëñ Daaru Asan benn bis daa toog ba mu yàgg daal di yëngal bopp bi na sëñ bi lu mu wax mu am ñu ko lu xew mhm. mu ne ñaari picc yee laa dégg liñ sab mhm. mel ni dana ko fu muy fanaani ndax dafa lay Mhm. mu ne ko garabu suñ daaru Assane Ndiaye ge muy jangale alxuraan mën nañ fa fanaani kon yaakaar naa ni kon koku romu na fofu deug la mais Moussa bi tuba bi wote dama len da ngeen di fexé ba mu def lu nakari yalla mhm. amana mhm. jëlu responsabilité de ngeen mënal ko dara mais na ngeen fexé ba mu def lu nakari yalla lu man nak ñu ne kon lan moy problème xanaa xamoo Moussa Fall nit yalla yi ni ñu jégué yalla la seeni bakkar la seeni bakkar di gëna yombé fi ne ku la gëna jëgé yalla du ah. la jëgé suñu borom hmm. mo lay gëna wal am ba fi ne am xam nga yow mën tok ma ak yow ma xalaat bakkar hmm. xalaat mais du tax yalla bindal ma ko hmm. mais am na ñoo xam ne sañuñu ko waaw nit bu buñ ko do condamné sax suñu mamo ki xam ba noppi def li tax ñu condamné ko du bokk ki nga xam ni xamut limu def ba tax mu joom def ko ñu condamné ko yalla loko gëna jëgé gën ko ragal gën ko xam gën ko ragal gën ko xam léeg soxna ben soxna lañ sunni kooku wax nañ ni day mel ni comme ni ñuy tànne jigéen ñi mhm. ci ay def de de défoulement mhm. boo duggee bu duggee ci néegam mhm. waxtu sàngam day fatu buñ la dugalee yow fexeel ba laal ko rek ndaw si moom loolu lañ ko sant fay baay bi xaalis ñun leen amul problème soxna si bi mu dugg sëy rek sëñ bi xam ne ci moom la jëm dana sëñ bi dana taf maanaam ni jargoñ bi maanaam ni soccet di di naawe dana taf tafu ca beekoñ soxna si dem ngir song ko sëñ bi dana taf ca geekoñ bi mu demee ba sonal ko ci néeg bi sëñ bi daal di jël xalima ko ko ndox soxna si doon mbott mu këpp ko mu këll bi na ci jaamu yàlla labbe bi lam leen waxoon kon ñoom réussir nañ ko ndax def nañ ko mais nag ban problème la ñu am échec nañ mhm. dañoo xëy ubbi bunt bi laaj ñu ne leen ñu ne sëñ bi ana suñu kiñ fi dugaloon am na jigéen ju fi nekkoon hmm. sëñ bi joxoon leen këll bi ñu ubbi ko gis mbott ñu ne ko mbàkk eh, kii mbott la te ñun bi ñu fiy dugg ana suñu nit fan la ne woon coow la nar a bari sëñ bi mel leen gëlëmal bi cax ba xalima gi ndaw si jóg taxaw hmm. ñu laaj ko mun leen bi ngeen ma fi jugalee hmm. doon naa ko jéem a laal mu daw ca koñ bële ma daw ko jéem ko jéem a laal mu dem ca koñ bee ginnaaw bi nag lii muy bundee la ma bi cax ci laa gëj a xamee ci àddina dara lolu lab bi yu jóge woon fii. Mm, ñu ngi la jëm nañu Moustapha mm-hmm. jot nañu. waaye nuy mujjee. Mm-hmm. lab yi naan ko nanu maro. Mm-hmm. nanu maro. nanu maro ça à dire mais nañ ko comprendre waaw. maro batu maro moy ño xamni lay day masla masla bu jubóo jéem a àndandoo. jubóo waaw. waaw ci ñek rek léegi. waaw ci ñek waaw léegi ci ñek rek. Mm. waaw labbe yi dañuy wax ak sëriñ bi léegi. Uh-huh. ci ni ko bëggee. Uh-huh. moo tax mun leen su ngeen defee la ngeen defoon. Uh-huh. ñu defati lan defoon. bu ngeen defati su ngeen defut nag duñ defati. waaw dëgg la de. su ngeen waxee la ngeen waxoon. mu waxati leen lan lañ waxoon. mu nga xale ma nga biiru ndar. su ngeen waxul rek duñ waxat mhm. mu ne nag kuy dil laajal Moodu Sall maître ma sang la moo mhm. demoon ba jàll mhm. bisu keroog foog na mbubbum baraaya sarax ko sax siidi maa ba may riwaaya moo nu ko doon xibaar bi doon a sandi am na fa yetti weer du dóor du jànni doo ko indi nag sama waajo ku weddi laa Cheikh Modou Lo Dagana ba laataa gis Cheikh Bamba na xëy na kokk guy bisub talaata nam man ci géej gi bañ naan xat maata ba dellu see ca déwén saak bis ba lay deer a seeru Bamba ngir pas ba mu jaar Banjul jaar wàlli Sikki Coor jaar Karaban way seju jolay buur jox mandim manding la dox ci gaaw romb leon fanan fa gaaw xey ba sarlong ba jall biri bi laj seigne touba weesu arabi dox mën a jaari grand leyo wàcc grand popo fanan li kar leyo xëye bu ma romb kap dimbal ma di seen dunub tebuk tena lambal ma xey fa jëm cameroun nañ ko mana ak timule ko boy nuy mana mu romb leen tefesu jëm beser woni laj seigne touba ñu nan ko baful yi mu grand bassa tefesu wessu abidjan wër suuf dox akara tefesu weesu wiindaa laaj sëñ Tuubaa ñu naan ko wiindaa moor ca gaali géej ya jaar Lagos jaar ci réew ma akasa Kapkosa romb bata dem Douala laajte doomi doomi asawalo Porto-Novo Cotonou Sitikama romb na leen sax wàcc ga moom ñu naan comment keroog la laaj Seex Bamba nam sa kayita mu naan ko wéy na ko nga naa la seeta Moustapha histoire sëñ Tuubaa xajut fii xajut Italie xajut France xajut fenn mhm. moo tax dañuy résumé rek waaye la mu doon wax fee daal tey ñëw nañ fii nga xamante ne hmm. ci bàkki suñ tuwaa la bokk muy siyaaraat suñu safaa hmm. euh, Baye Fall Thiam murid bi nga xam ni lu ne mi koy liggéeyal murid yi ci monde bi hmm. te communication am lu mu doon ak suñ papa Abdoulaye Lo mi nga xam ne nag démb ba tey man ak ñoom waaye nag daa mel dama lay bàyyi rek nga continuer murid yi ba ci kanam euh, bala maa tàng ndax damay bañ tang, tàng mu safaa déedéet bul tàng jërëjëf sëñ Mamor xam naa sax baax ci ndax fii seddaay bi tubaarkàlla boo xoolee nit ñi rek xam ni sedd na lool waaye euh, ñu ngi lay sant ci euh, régime bi nga xam ne defal nañu ko rek ci wàllu li ñu jublu woon wan nit ñi rek ak dégtal leen ko muy ñu xam ni histoire sëriñ bi lu àddina di gën a dox rek euh, àddina day gën a firi mbirum sëriñ bi muy gën a leer nit ñi di xam ni bii lépp bii lippoon lu fi amoon la lu ñu fànn loo xam ni boo xoolee gis ko boo tegee sa baaraam gis ko ndax tey jii histoire yonent yi nga xam ne ñoo fi jaaroon téere yooyu ñu ko nettali muy alxuraanul karim ay junni at la ak lu topp waaye histoire sëriñ bi dangay ngay waaxu nànk dugg fii ci Touba dëkkam nekk nii ay doomam nekk nii ay njabootam nekk nii fi mu demoon yëpp it nekk nii waaye li mu réalisé ak li nga xam ne moom la réussir ni fànn nit ñi di ci tëbbat muy loo xam ne jàmmi àddina la ak jàmmi alaaxira kon deuxième étape bi nga xamante ni ci la ñu bëgg a dugg muy suñu wëllëree mbokki sénégalais yi nga xam ni fekk nañ leen fi ñu am ay laaj ñu leen laaj yoo xamante ni incha allahu rabbi dinañ ci fas yéene ànd ak seen télévision Touba TV. kon xanaa ginnaaw bi ñu santaate yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu santaat suñu Tuubaa Xaadimu Rasuul suñu yaakaar di leen jox nag lii nga xam ne conseil bi moo leen ko joxoon tuddee ko attestation de reconnaissance maanaam attestation buy wane ne nangu nañ. seen seen seen seen liggéey mhm. muy télévision bu ñuy wax Touba TV mhm. te ñu joxoon leen ko ci cinq novembre deux mille seize mhm. te jamono jooju ku ñuy wax madame Rokhaya Ba Touré nekkoon fi euh, xëy na jot gi mayewu ko woon ak xat-xati jamono ji ba boobaag léegi ñëwu fi ba tey jii ngeen doog fee ñëw mhm. di ko jël si waale mhm. ñëw fekkaat fi moriti suñ tuwaay yi mhm. ñu wax leen koo joxaat kon ñu ngi leen koy jox waaw sëñ Mamour xam naa ni lii moom sant yàlla la rek ak di wane ni euh, liggéey bi nga xamante ni télévision Touba TV ñu ngi koy liggéey ci àddina bi ci ni ko suñ Xaadim waxee léegi rek lii firnde la ci ndax ki nga xam ne mooy jëwriñ Alaaji Mbàkke yu fay nekk le représentant du xalif général des Mourides yor kàddoom waaye euh, liggéey jumaa jooju Masaalikul Jinaan euh, moom day wax ni télé bi maag moom ñoo bokk borom Touba TV moomu ma ko sëñ Touba ko moom te waxu ko rek da ko wax jëfe ko te jëf jooju mën nañ koo seere ndax lu bare bari tax na seere moom ñaar war naa tax nit di seere lu mu teg bëtam wala lu mu teg loxoom kon ñun buñ koy seere loolu dëgg la loolu nag bu dee dox bañ ñëw ba tey jii diplôme bii ñu yëkkati ko jox ko télévision Touba TV ngir taxawaayam ci àddina bi taxawaayam ci Afrique loolu rek day wane ka ni euh, lépp day delluwaat ci moom muy jëriñ El Hadj Mbacké Faye sëñ Touba di ko wan saa su ne ni ko li ngay def lépp muy jëm ci man maa ngi koy gis maa ngi koy nangu. kon yàlla na ko yàlla gën a yàggal ci suñu kanam sëñ Mamor euh, lan ngay wax ci loolu rek bala ñoo ñaan. Moustapha attestation reconnaissance bi. mën naa waat ni sëñ Mountakha lañ ko jox. Mhm. ndax télé bi noo bokk borom. Mhm. ñun suñ Tuubaa moonu moom moom télé bi moom borom. mbàkk yi am représentant la ci rek. Mhm. day wax ne su su su fekkoon benn animateur néew fi du Moustapha Kane du Amidou Diop du Mame Mor Mbaye ma fay benn technicien. muy wane foto sëñ Touba ba ngoon ñuy teg xasaayit waaye ñun nit ñi di dégg sëñ Touba sëñ Abdou Lahad nag média ko merloo woon dañu mës a xam ne doomu sëñ Touba am na lu ko métti waaye yàlla média fay na ko Touba monde bi Touba TV Touba Lamp Fall mm-hmm. Al Mouridiya ah, télé yëpp ñu ngi dox te kanam la gën a jëm mm-hmm. ndax sëñ Touba teyam dina day la ëllëg mm-hmm. kon lii buñ ko joxee Touba TV yoonu murit yëpp lañ ko jox l'islam bépp lañ ko jox tarixa yëpp lañ ko jox ndax laa télé qui nous rassemble tijaan yi dañ ciy gis seen bopp xaadir yi dañ ciy gis seen bopp laayeen yi dañ ciy gis seen bopp ñëpp dañ ciy gi seen bopp ndax Serigne Touba moo njaboote ñëpp sëñ Moustapha Kane mm. euh, jërëjëf consul bi nga xam ne defoon na ko waaye ñoo ngi mention spéciale Baye Fall ak murid yi nga xamante ne mm. defaat nañ ci ay yitte ba ñu xam ne bi ñu ñëwee maag yow mm. lii rek jaroon na ñu jóge Sénégal mm-hmm. ñëw jël si ko dem te def ñu benn émission jaroon na ko sëñ Moustapha عجبني خيروبا فتح في خطابا كل ورى خبيما لخاد أهتابا لوجه الباقي ماء أزدان ما به لنا حرب وهو كه والأمل ما خاب بهد الذي ليس ينحني ولي بدلي وليخالده من كاب سحابا إلا سوى يلي بما تنهوا ربي وبيسافي لا هدار الباب خلاب ما لم يهي بني على وجل ولا يلاخ ما رام ولا الباب ينقاد لي كل ما رام الكرام المنن والله راخ بما لقد أحجاب ينقاد لي كل ما رام الكرام المنن والله رخب ما لغدا أحباب سنجوا دي سنجوا جلي جف لقي كان ما كان ما يجيل كابو dalim taxaw ni mu awal wala sa gamom ni dalim taxaw ni dalim ni dalim suñu abdakim bu mag la jàmbaar lañ si Abdou Assis am si Abdou Akim moo moo tudd nan Moustapha Diakhaté yow man Moustapha Kébé Moustapha Kébé Baye Fall man de diggante Moustapha yi ma dugg sax day fàll na <laughs> Moustapha kan Moustapha Kébé Moustapha mm-hmm. ah, yi euh, yaakaar naa dégg ngeen waxtaan wi nga xam ne sëriñ Mamor defal na leen ko euh, mu am solo lool euh, waaye sëriñ Fallou Euh, mbeng mu baax mi gis ngeen euh, Touba Milan gis ngeen xasida gi mu ñu yëkkatil muy ajaabani euh, xayru baaxin fii xattaaba kulli wala xaadima yii xaada axtaaba te la sëriñ bi di waxee ni xuloobu man lam yuhibbooni ala wajalin waaye wala yulaaxuuna ma raamoo walal baaba muy loo xamante ni yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ni képp koo xam ni jubluwul sëriñ bi rek ci nëx-nëxi àddina ak ëllëg ëllëg si biir it loolu rek moo lay dal waaye ginnaaw loolu tamit ngeen gis sunu jëwriñ ji nga xam ne mooy Serigne Moustapha Diakhaté nga xamante ni mën nañoo wax ni mooy jëwriñu daayira bii nga xam ni moo fi nekk waaye tamit jiite taalibi Serigne Touba yi nga xam ni ñoo fi nekk ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne bi waaye Serigne Moustapha Kébé Kébé suñu Moustapha ah, Kébé mooy mooy mooy mooy jëwriñ suñu Moustapha Jaxate mooy waa ko suñu Abdou Hakim waaw waaw waaw suñu Moustapha Kébé ma ngoog waaw kon ngeen gis Serigne Moustapha Kébé ñi nga xamante ni euh, mooy jëwriñ ji euh, ñu taxaw ak moom nii nga xamante ni tey ji kàddu gi sax moo ko waroon a ci taxawaayam ak jëwriñ nga xam ne yàlla suñu oh. borom moo koy moo koy moo koy tudd ci doomu aadama waaye mu jox kàddu gi nag sëriñ Moustapha jaxate ñun sëriñ Abdoul Hakim mi nga xamante ni moom tamit taxawaayam oh. euh, xam nañ ko ci euh, daayira bi xam ko ci mbokki taalibe yi te mu wax ñu léegi lu am solo loo xamante ni rek mooy wane que ni taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp benn lañ euh, waaye dañuy bàyyi kàddu gi rek ak sëriñ Moustapha mii nga xamante ni Diakhaté mii nga xam ne tamit moom la ñu sëriñ Moustapha Kébé mi nga xam ni moom la ñu jox kàddu gi suñ fàllu ñu ngi lay sant ci xasida gi ñu ngi lay ñaanal suñ tubaa dolli say xéwal dolli say teraanga ci barkeb suñ tubaa kon Cheikh Mouhamadou Moustapha yéen a ñëpp di déglu bisimilah aouzu billahi min ashaytaani rajim mm-hmm. bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin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 Euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant sëñ Tuubaa mi ñu boole ginnaaw bi ngeen jógee ba fekk ñu fii nga xam ne fi la ñuy sàkkoo addiya muy barab boo xam ne nag xëy na yàgg nañ ndax bari nañu ñu fi jiitu woon 1983 euh, ba léegi léegi mu metti léegi-léegi it mu mu mu mu neex waaye loolu it xam nañ ne li koy nooyal saa su ne mooy mhm. addi yi jiñ fii dajale di ko yët Sëñ Tuubaa mhm. nga xam ne ginnaaw yàlla xëy na Covid bee ñu gàllankoor waaye màggalu Poroxaan giñ ko mujj jébbale mbokki taalibe yi fukki million lañ dajale woon jox ko Sëñ Muntaxa loolu nag Sëñ Tuubaa tax mu nooy bañ man man koo am mhm. ndax fii moom ba ñi xam Milan ñëpp xam nañ ne fii du barab boo xam ne sax xëy na warees naa nangu nit taxaw fi sax wala euh, nit ku taxaw fi sax wëlbati ko di fi di di fi wut dara mhm. waaye bu nooyee dañuy jàpp ne sëñ Tuubaa ko nooyal ndax sëñ Tuubaa moom wan nañu boppam ay yoon yoon yàgg nañu koo wan mhm. ku ko gëmit di nga jariñu ci moom sëñ bi moom lii sëñ Muntaxa di wax na ne Cheikh Mouhamadou Bassir waxoon na ko ne ko sëñ Tuubaa ko am fulla la foo ko féete mu fale la mhm. loolu it ñun gis nañ ko ci piyaat bi xëy na fii ñu ne mbooleem ñi fi gën a yaafus mooy ñi fi nangu wut sëñ Tuubaa waaye ñi nangu sëñ Tuubaa ñëpp ñi ngi amee xéewal loolu nag sëñ Tuubaa lañ ciy sant boo wér a wér kon bu ngeen doxee ba fekk ñu fi dinañ leen sant ndax nit amut lu dut ku ko yëg te fu ko ku ko fekk ca barab ba muy liggéeyee yëg nga ko waaye bu ngeen delloo Sénégal daal na ngeen xam ne barab bi ñu nekk ñu fi daje ñëpp liggéey sëñ Tuubaa leen ñor ndax ay murit saadi xafe daje daje mhm. ak i bàyyi faal yoo xam ne lu dul liggéey Sëñ Tuubaa ñor leen mhm. bis bu set ñu gam def seen kéemtulaay kattan mhm. mbokki taal yi sax bari na ci ñoo xam ne ni ku ci am gàllankoor ñoom ñi ñooy daje waat seen yàq mhm. di dimbali jàppale la ci loolu bërki démb la fi nit ku bokkoon ci ñun wàññiku mhm. daanaka li ko yóbbu ginnaaw yàlla ci ñun ci ci mbokki Baay Faal yi la jóge mhm. loolu nag buñ ko sant kenn ku sëriñ bi ndax sëriñ bee ko may sëriñ bee ñu may jooju doole moo ñu may pas-pas boobu moo ñu may yitte jooju ba man koo def saa su ne kon nag ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal ndax bala ngaa jeexal suñu Moustapha ndax léeg-léeg euh, ab sénégalais dina nekk fii yàlla dogal mu am fi jafe-jafe wala mu wàññi koo fi war a dem Sénégal ñu am jafe-jafe war koo yóbbu ngir xëy na mu ñàkk jaxasoog Sénégal yi wala mu ñàkk ñëw ci daayira sëriñ bi ba taalibe yi mañ koo xam maanaam daal saa su amee xëy na day koo xam ne moom yënguwut ci sëriñ bi maanaam yënguwut ci ci ci ci ci di ñëw ci mbokki taalibe yi maam ber yoonu boppam ànd ak tubaab yi wala dara waaye képp koo xam ne nii moom yaa ngi yëngu ci sëriñ bi di yëngu di ñëw ci mbokki taalibe yi donte doom murit it mbokki taalibe yi moom di doon jëf ndax kii fi mujj wàññi koo xëy na euh, genn wàllam gi ay murit lañ genn wàll gi ay tijaan lañ waaye li nga xam ne moom la ci murit yi def lu jege cinq mille euros ci barab bii ñu nekk lañ ko dajalee six mille euros ci barab bii lañ ko dajalee jox ko ay jox jox ko ay bokkam ginnaaw yàlla looloo ko yóbbu loole loolee nag ñun dañuy jàpp ne li ñu ko may sëriñ bi dong bu ñu hmm. buñ buñ nekkutoon ci sëriñ bi bis bu set buñ si taxawee ñu jëlee ñu fi kon buñ fi mën a dajalee dara hmm. ndax daana metti ñu di ñu dàq waaye téewut saa suñ dikkaatee it waxtu wi ñuy may ñu nekkaat fi rek dinañ ci mën a sàkku addiyee joo xam ne nii hmm. dinañ ci mën a dimbale suñu bopp dimbale ci suñu mbokk dimbale ci eh, am di jàmm yi jox ci addiyee sëriñ bi hmm. ndax lépp lu murit di dajale moom bu ca jiitalee addiyee rek hmm. dina dina yéwén te dina ñoŋ waaye boo ci mujjee addiyee moom mën naa bañ a yéwén mën naa bañ a ñoŋ loolu nag ñun sëñ bi koy sant rek bari na fi mbokki taalibe yu fi amee jafe-jafe ñoo xam ne nii ca ganeen wàll lañ nekkoon sax daaw ñu ñëw ci ñun mm-hmm. te téewul ba ñu amee jafe-jafe ñun waa Pirates bii ñoo leen dimbale mm-hmm. ñoo leen taxaw mm-hmm. loolu nag moom sante wuñ ko kenn pour sëriñ bi wax rek ñun bala ngaa daaneel si kàddu rek sëñ Mamor bu amee laaj bu laaj rek ñu bàyyi ko mu mu laaj la ko Moustapha jërëjëf euh, sëñ Moustapha Jaxate jërëjëf sëñ Moustapha Kébé Eh, jërëjëf suñu ñaari jàmbaar yi man li ma laaj rek damaa ñëw fii dégg ñu rek ñu doon lijjanti karoy Masalikul Jinaan muy eh, sëriñ Cheikh Bassirou sëriñ Abdou Khadre ak sëriñ Mbackiou Faye fekk nañ leen fi yéen kàddu ngeen waxante ak ñoom keroog ñoom itam defoon nañ nii ngeen defoon ñëw eh, xëy na biñ njëkkee ñëw sax xëy na romboon nañ ñu xamuñu waaye Mbackiou Faye bi mu déggee ñu wax wolof rek ci la daal di taxaw saafonteeg ñun nuyoog ñun wan nañu nag ci liggéey sëñ bi laa la la nekk hmm. ah bam bañ xamee ndax moom moom ñu xëy na moo ñu dut xam waaye ñun moom ku ne xam na hmm. ne Mbackiou Faye moom bu jógee ñëw rek liggéey sëñ bi ko tax a jóg dëgg la moo tax ba mu ñëwee euh, saafonte naa ñun yokkaat nañu ci sëriñ bi ñu nit dolli nañ ko hmm. ah, ñu xam ne jëmm la joo xam ne nii moom itam liggéey sëñ Tuubaa dong nga ko ñoroon te euh, ci la nekk murid yëpp amon ci mbégte biñ biñ biñ saafo taxawee moom saafonteeg moom fii mhm. loolu it ñu ngi ci doon sant ñu ci doon sant sëriñ bu baaxa baaxa baax mo sama ni ma ko dabe ci bir garab bi la ko dabé han ah? ci bir garab bi la ko dabé dék mi nga and ak seen soxna su ndaw ak ñaari mourid ma dab ko ñoko ma dama ko jub ko ah kooku du sëriñ mbakki yu fay mu ne ma axa ah, kay ndongo la ngi ni ci ko yefam ak sëriñ mbakki yu ñu toll daa di dëpp daal di ak man nuyu bu mu nuyoo ba nag ma ne mbokki taalibe bi am ñoo romb fee ñuy nattab naa suñ mbàkk yu ak suñ yu ma ne la dabi ba xam mu ne mu ne man daal di wëññi ko waat ci woyofam ñëw fekk ñu fee ci biir galeria bi ci wet gi faree nële bu mu dikkee mu waxtaan ak ñun saafanteeg ñun ndeysaan jàmmanteeg ñun na man kat xamal nañu li may dox kat mooy ci wàllu kare yu jëm ci jumaa jumaa ji Masaalikul Jinaan moo ma tax a jóg waaye yéen da ngeen di ay mbokki taalibe yoo xam si mënuma leen a romb te waxtaanuma ak yéen taxaw ñun lu yàgg ci woyeefam nag ci mbaaxam waxtaan ak ñun waxtaan Sëñ Tuubaa lu yàgg xamal ñun fii ngeen ne fii ngeen nekk di fi sàkku addika na ngeen jàpp ne maanaam Sëñ Tuubaa leen fi bàyyi kon nag yéen da ngeen di liggéey Sëñ Tuubaa kon nag na ngeen bennoo te bokk ay xalaat ngeen nga xam ne maanaam daal moom yéen daal na ngeen doon wenn say rek su ngeen ko defee lu ngeen fonk da ngeen ko daal waaw loolu suñ mbàkk yi fay ci baaxam ci woyefam wax dëgg yaa am defal ñun loolu te bu ko neexoon mën naa romb jàll fii ngeen taxawit suñ Abdou Samatum suñ soñu fii ñëw na fi ay yoon fekk ma fii fekk na fi mbooloom yëpp ñu ànd fii ay yoon ñetti yoon yoo xam ne sii fii ci barab bii la barab bi ay kilifa yu bëre bëree bëree bëri bëri fekk fi fii mënumaa lim ñëpp sax waaye dama jëlee seppi kooku rek. barab bi lu muy symbolise fii. fii fii nag dafa nekk xolub Mina fii ne nii bu doon ne maanaam ci ci ci Touba laa la koy misaal maanaam la ñu ngi ci wetu jumaa ji. ñoo ngi ci urum bi. urumu jumaa ji fii ñoom dañ koo fonk fonkil koo xam ne si sii mënu su ko wax comme ni mu Moussa Diakhaté mi wax rek su nooyee bañ fi nekk di sakku addi ñu ñu fi bàyyi. pexe yu ne def nañ ko waaye damaa jàpp ne ma addi ji ñu fiy di ko yóbbu ci sëñ Tuubaa ak di ci dimbale mbokki taalibe yi jullit nga xam ne dañuy jaaxle ba xamutul ñu jëm ñun leen dem leen ci ñee buñ dikkee ñu dajale suñu ñaq ak suñu suñuy suñuy dërëm ak suñuy cinq euro ak suñuy dix euro ak suñuy vingt dajale lépp rek fajal ko aajoom mu dem te duñ ko xam sax duñu xam waaye loolu dañ ko def rek ngir yàlla ak jëmmi sëñ Tuubaa ji nga xam ne moom la ñuy liggéeyal fii def ñu ci xaj ak seen fii nit sax am na fi problème a dema dema dema dem ba mu nga xam ne maanaam dem na ba tàggoog sagoom mënatu dem keroog jëmm ji moo ko yóbbu senegal ndar faal mais ndar ñoo dajale liñ béy liñ daggee béy yeeg biñ ko daggalee béy yëpp ndar faal mi moo ko yóbbu ci bokkam te loolu dañ ko def ngir yàlla rek te kooka yëngoowul fii sax fii daal li mu la ko mën a waxee daal mooy maa ñun dañ fiy liggéeyal Serigne Touba waaw kii mooy xaadim Touré addiya ji mooy itam mook Ali Sey mais ñooy laaj addiya ji kii mooy ñoom ñaar ñooy dajale addiya ji yàlla na leen yomb waaw amiin amiin yàlla na leen yomb amiin moo ngi ñaan Serigne Touba daal amiin yàlla bu leen fi gis dara lu leen naqari allahumma amiin ci barke Cheikhul Khadim yàlla na leen Serigne Touba fekk fii amiin teel leen ndax la leen Serigne Modou Sa Dieng waxoon rek yéen ñëpp xam naa le ne seen xol toog fii neexu leen mhm. sàkku addiya indil ko sëñ Tuubaa rek a nekk sëñ dana ko def fii la Seex Moustapha Falilu daan ñëw Moustapha gaa yi nekk ci problème mu ne leen xool leen mbedd yi gën a tàng jaarale leen ma sax xëy na ñoom ñi ko dund te man damay dégg rek xam man man man man moom euh, looy bañ ma wax ko rek bu bu ma ko wax mu dugg ma Seex Moustapha keroog dañ ne daa mujj ne lu ngeen bëgg ñu ne këyit mu ne yéen ñëpp xool leen ma rek yaakaar naa ne kum ku ma sa wax lolo sa aajo faju na ci côté bob kon yalla na len yom yalla bu len fi am len lu len nakari ci barke Cheikh Amadou Bamba ndax ben problème ngeen am moy bu len sañoon budget Italie ak bu France ak bu amerique lepp di ngeen ko buub yóbbul ko seigne touba lolo nak yalla na ngeen ci tibbe lu ko kenn musta tibbe ci barke Cheikh amadou Bamba khadim rasoul jere ngeen alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh ma ngi nuyu mbokk julli yep nuyu mbokk talib yep sant Serigne Touba bu baax a baax a baax sant Serigne Touba bu baax a baax a baax sant Serigne Touba bu baax ah man nag li ma ci duggee mooy di sant Serigne Touba rek ndax euh, li ngeen wax yëpp li koy tënk mooy li ma déggoon sëñ Sidi Mokhtar waxoon na ko ndax sëñ Sidi Mokhtar dégg naa bi ko bi sëñ Serigne bi ko tubaab bi jàppee ànd ak moom ànd ak moom ànd ak moom ba war a wëlbatiku daf ko wutaloon ay saakuy xaalis. biñ ko bëgg a jox Sëñ Tuubaa pour mu yóbbaale ko mu ne lii luñ si jublu mu nii lii kat dafa wax ne dañ leen dañ la koy décorer pour nga yóbbaale ko mu ne leen bàyyi leen ma ko fi dana am ñu ko jël si naa yemal ñu ko jël loole loolee mu ne mooy waral ñëw gii ñu ñëw fii nii di ko jël si loolu si sëñ Sidi Muxtaar laa ko kon ñun suñ jëmm yi ak liñ fi wël ci yëpp Sëñ Tuubaa moom moo ko moom amuñu dara kon nag ñu ne ñaan li fi wut si dikk fi jël si lépp mu defaat ci lu neex sëñ Tuubaa mboolem jullit mboolem taalibe loolee tamit li ci jëf firnde rek gëm naa ne ñu ñu ngi liggéeyal sëñ Tuubaa ndax lii ñu la seedal lii xaadim euh, Baay Faal ko mi seedal si xaadim Turó mee ne kookee wéridi woon na ba dontal sakaram ñu dajaleel ko addiya ban ko dajale addiya xaadim Turó mee ne moo ko yóbbu ba ko yóbboo ba àgg lan ko doon faje moo ko joxe waat mm-hmm. tubaarkalla ñu di ko ci faj ba ku waxee fii nii nga yor de soxnaam takk na soxnaam bu yor soxnaam bay liggéey kon loolee liggéey liggéey bi bi ñu sëñ Touba doon liggéeyloo fi gëm naa ni ñu ngi koy nangu sa ñu ngi ñaan fu ñu toll mu nangul ñu ko barke Serigne Touba barke Serigne Touba barke Serigne Touba jërë ngeen jëf sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax jërë ngeen jëf ndar xaal mooy ah. sant naa. Hmm? jërëjëf kon xam naa suñu kàddu bu mujj rek dañ koy bàyyee suñu Xaadim Touré ñu gën koo xam ci ndar euh, mu am kàddu yu ñu ci tegal yaakaar naa wax nañ léegi ni bokku nga ci ñi dajalé addu yi nga xamni mom lañu la sëriñ bi yaak sëriñ Ali Sey sëriñ Ali Sey mi kon dañ lay bayyi rek nga am kaddu yoonu ci dolli yaakaar na dégg li nga xamni mom la mbokk taalibe yi dëgg la alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu mbokk taalibe yëpp ak mbokk jini yëpp waaw kaddu gi mom kaddu sante kassa la ndax mom amna amna mom nimbal sëriñ borom la ndax bo ñëwé ci bërëb fekk fu say jëwriñ mom ñu nga sëriñ tuwa lo sante la hmm. te sëriñ jëwrin mooy Moustapha Kébé Baye Fall ak Moustapha Diakhaté ma ak ñoom xaalis ñooy si jëriñ teg ñu si yoon li wax moom si bëri bi moom dëgg la ndax moom moom suñu toile fi dimbale ndax li ñu dimbalee mooy ragal ñu njëkk a si yow loolu suñu tuwaaw moom lañ ko doon wax tubaab sa rafa te ñun moom dañuy doomu aadama yoo xam ne moom képp ki ñëwee si àdduna rek dañuy xool xam ne yaa ngi mën suñu tubaab ndax loolu ko amul xool sa xol di nga xam ne nga xool xam ne kii fi la fu mu toll sa fi toll nga fa mhm. kon loolu moom la ñuy ñëwee doomu aadama di waaye nag bërëb yi moom euh, sëñ Tuubaa dañu see dimbali bu baax a baax a baax ndax social yi bëri na fi lool gars yi wàllu ñu yóbbu waaye nit am na fi problème sax ñu war kaa dëpp avocat nag boo fanaanee tey tey ñu dëppale Sénégal ñu fexe ba mu génn ak ñu ñu faj ko ak ñu am ay problème yu këyit ñu jënd fi lépp si suñu borom dimbali si si barke Sëriñ Tuubaa rek te lu gën a waar mooy si borom télé borom télé bi ñuy waxee nii mm-hmm. boo xoolee li tax mu gën a tey mooy daara fii li ko sos laaj li ko waral dëgg-dëgg mooy Massalikul Jinaan moom télé bi bu ñëwee fii te liggéey liggéey Massalikul nekk say loxoom addi ji njëkk am fa nañ ko dugal muy un million yi mooy si si mata mu waxee ne ku fi feeñ dootoo nëbb dëgg la Moustapha Diakhaté ak Moustapha Kébé nañ déglu daal ñu déglu un million def si jumaa ji di ma waante bu ñu koy tijjiwaat fii nañ toll ni ma ma jàll nag man ak Aliou Seye mii jël nag bu trois cent cinquante mille def ay ndekki yóbbu ko Massalikul Jinaan kon loolu bu nee ba jëmmi teleen xam ne mbaa moom teleem ñoo di mm-hmm. interview mm-hmm. te njëkk a si liggéeyam boo xam ne suñu tubaab si loo xam ne ko teg mm-hmm. loolu sant yàlla la ñun daal moom luñ mënta wax ak bu jiyee buñ jimut suñu lépp sant suñu tubaab la dëgg wóor na si Ahmad Bamba xaali s mbaa moom dañ koy safoo di ko tiis ko ndax moom day jëmm joo xam ne élément yooyu murid yi dama dinañ ñaan yàgg fi ko wér ndax yow muñu ñooñu ay jégli Serigne Touba lañ man xaw bu ma defee benn nag mu gisee wala wër na si Ahmad Bamba dama koy ñaan chaque jour heure bi tey dama ko ñaan yàlla yokk ko may ko gudd fan may ko ndax lu mu am bu ko ko feneen mhm. waaw loo ko mën wax rek fu ngay daane moo ko bëgg sëñ Tuubaa sëriñ bi rek mën na fi am leneen lu bëgg moom lu ko waaye mën seeral am mu da ngaa bëgg sëñ Tuubaa da nga ko liggéeyal loolu la wax ay amul sens amul sens kon nag ñu ngi koy ñaan moom suñu borom bàyyi ko suñu kanam may ko gudd fan may ko wér di sant sama jëriñ nag Moustapha Baye Fall mi lépp lu mën ñemee def si place bi di ko liggéey sëñ Tuubaa moom a si jàppale barke maam seeral Fall daa wax day leer quoi joxal ma sama dépense joxal ma am nit bu ñu ko dimbalee. si liggéey Sëriñ Tuubaa. kon kon faaw nga sant ko. dëgg la di sant Aliou Seye mi tamit. jàmbaas liggéey lépp lu fi laaj ñoo ko seqalaat. di sant Sëriñ Fallu mi ma gën a. xas nañu jàmbaas si. di sant Maam Bamba di sant ñëpp. wax nag moo yomb damaa mënul wax nag. ah kay li nga wax nag ñu ngi sant daal ñu ngi sant wóor na si àll faal. tubaarkàlla jërëjëf euh, Cheikh Ma Cheikh Ahmadou Bamba xam naa kon mbokk yi euh, foofu euh, sëñ Mamour foofu la ñuy tëjee jotaay bi rek euh, di ñaan nag incha allahu rabbi nii ñu leen fi fekkee rek euh, yàlla na leen fi fekk at yu bëree bare bëri ni ko sëñ Mamar waxee euh, addiyee yomb leen lépp yomb leen ndax fii lu fi bàyyi rek ci sëriñ bi la jëm ci sëriñ bi moom lu fa dem rek moo gën lu fa demul wax nga dëgg suñ Tuubaa nee na ku dul yàlla soxla nga ndimbal ndimbal loolu nag buñ ko seqee ñun ci suñ biir rek lépp day daal di yomb te nee bëgg ma doy na jaamu yàlla am kóolute ci man doy na gàllaaj kon loolu moom la taalibe yi Sëñ Tuubaa yi def ci moom ñi ngi sant ñëpp ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha bu gën fi yàgg gën a wér di siyaare mboolem njabootu Sëñ Tuubaa gi di siyaare waa Sénégal euh, Serigne Pape Abdoulahi Lo mu baax mii tamit noo ngi koy dellu di ko siyaare waat di ko santaat di ko ñaanal ak Sëñ Baye Fall Thiam Murid Sadikh ñi nga xam ni Touba monde bi moo ko jiite waaye bam nee Touba bi rek la jeex ndax mbooleem Touba yeeg organe de presse yëpp day duggaat ci biir ndax monde bi moy adina bi te adina bi mom la seigne bi waxoon rek malaka ni dunya ya ukhra samadu ma indi woo lixtaaroo muhammad kon ñi ngi talal suñu loxo rek suñu mamor ñu def ñaan ba beneen yoon inshallah allah rabbi jërëjëf mbokk yi nga xamni ñi ngi doon top ci émission bu am solo bi ñu leen defal waye nak ginaaw bi nga xamé ni jugé nañ ci réew mi nga xamni moy réewum italy ci émission yi ñu leen fi defalal ñëw fi nak ci gar bi wala jël bis nag euh, jëm fële nga xam ne mooy Suisse incha allahu rabbi euh, fee ci Genève fas yéene àndaat ak ci seen télévision Touba TV rek sëñ Mamor waaye mel na ni am na euh, suñu ay sang yoo xamante ni yoon wi dañ koo ànd ak ñoom taxawunu te xam ngeen ni la sëriñ waxoon rek ni ku dul yàlla aajowoo nga ndimbal ndimbal loola nag nii nga xam ni sëriñ Papa Ablaye loo mii ak Baye Fall ak ñeneen ak ñeneen noonu lañ ko defee ci suñuy mbokki taalibe taxawuñu noonu la amee kilifa yoo xam ne fañ toog la ñuy toog yor seen téléphone di ñu gindi di ñu jàppale di ñu tegtal di ñu tette ba liggéey bi lépp ma a yem ndax xam ne seen maam la ñuy liggéeyal waaye loolu duma ci sori suñ maam Mor dama lay bàyyi rek nga siteel ma euh, ñi nga xam ne ñoo ñu jàppale ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal Serigne tubaa suñ maam Mor jërëjëf euh, sëñ Moustapha di jëkk suñu jëwriñ sëñ Mbackiou Faye euh, ci coordination bi mhm. waaye it ñoom ngi ko yëgal ni ko euh, sëñ Maam Mor Mbackeem Cheikh Mourtada mhm. taxawaayam fii dafa rafet lool mhm. ba fu nu dem murit yi xam ni am na lu mu le bàyyi woon ak ñoom muy message yu jom fulla ngor dëgg la moom it noo koy ñaanal waaye Moustapha ki nga xam ne moo nu doon coordonné dem leen bërëb sàngam wax leen nàngam mooy Serigne Abdou Mbacke moom Baye Cheikh Hadi. dëgg la mooy xalifa Baye Cheikh. Mm-hmm. waaye di murit. Mm-hmm. di ko ko sax ko xajoo ñëpp. Mm-hmm. Moustapha boole nañu fekk sax ay ñoo xam ni. ay chrétien ren. dëgg xam nga loolu jikko ju rafet. dëgg la waaye moom la way juree moom sëñ Fall waxoon ne. doomu aadama xaw ma lu jul mbind mi nuróog rasulullaahi rek waaw wala xadd karam naa ji rek laa jàppalee Senghor waaye sëñ Abdou noonu lay dox këram boo fa ñëwee mënoo xas Mhm. ndax ñëpp a fa ne mhm. doo am problème pour xas kenn ndax ñëpp fa nekk dëgg la tijaan baa nga fa xaadar baa nga fa laayeen baa nga fa même ñi ñu bokkalu diine ab Abdou fexe na euh, ba ba ba ba xajoo ñoom jaxasoo ak ñoom dëgg la boobu ba tey mi ngi naan ndax dem ngeen bërëb sàngam mhm. diw ndax na woon na leen ba ci siis géenu jëm mi nga naan ni boo leen demee na ngeen def nangam na ngeen wax nangam na ngeen def nangam kon noo gi ñaan suñu borom dolli ko jàmm tawfiixal ko suturaal ko mhm. sëñ fa mii nag nga xamante ne mooy sëñ Pape Abdoulaye Lo mhm. taalibi sëñ Pape Fallou euh, sëñ Aboum waaw xarit sama sëriñ la woon nga bëgg ko nangu waaye moom leer na ma ni nangu naa ko bu yàgg doo di nga ñëwaat mhm. sëñ Abou man xam naa ne di nga ñëwaat parce que man mos xam laa mos xam <laughs> maa ngi koy ziar bu ñu fekk ko fi bu mi nga xam Touba monde bi ñu ngi koy ñaanal waaye ñaan ak diplôme bi nga xam ne ndekete Italie consulat bi mom mo fi représenter ñep jox na ko Touba TV ci mu wara jaar ci directeur général sëñ Papa Diène sëñ Cheikh Balla Samb jëm ci jëwriñ Mbacke yu nga xam kuma sa xol télé bi bañ wax ci dara sa xol sedd ben minute xamal ne diplôme bi yow ya ko mom sëñ Safa dëgg la mu mel ni dañuy jëm Genève kaar yaa ngi nii waaye nag fa séenee dem foofa topp reportage bi ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul sa sa jërëjëf sëñ Mamor kon mbokki taalibe yi rek ngeen xaaruñu insha allahu rabbi ila Genève فعلم لمالك ملكا ذا تبروي من كل من بالكفر ذا تجروي ولا هدى سويت عن سوري إنسان يمن بالتوسل سبحانه ربني إلي ألتجي ومنه تفريج كروب أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد